waaw nee na 10 février 2002. waaw Mayel Cheikh As Barham 30 secondes. rawxaan yi mu àndal ak yeneen ak yeneen yi mu àndal wax ko ci sa jëmm ji mu delloo la li lim ko wax nga xam ni wax dëgg yàlla xam-xam am na. d'accord incha allah seet gi muy def nag mbokki internet yi du chaque jour la koy def. waaye daf koy fekk ci ay niveau mu seet seet gu mel nii seet goo xamante ni ah mën naa ni seetu rawxaan la seetu leneen ak leneen la ndax li koy wax. diggante mhm. di ko takk mu wax la ci sa jëmm ji loo xamante ni luy tàq te du fay la loolu xam nañ ni du seet gu neen am na mhm. leneen loo xam ne moo nekk ci biir gis ngeen dugg si bi sànq bi muy dugg si ndax Cheikh noonu. waaw. dina dugg si ak ànd ay mbiram ànd ay bagaasam moo tax euh, ku bokk ak moom jotaay faaw nga am loo yëg. émission yi bu ñu koy def am lu may yëg loo xamante ni xam naa ni kii du Lamine ndax li mu As soxna gisee ngi xaar. soxna gisee. waaw. Cheikh Assa ngi say mbir de. Hmm. ba tiito. ah. bekk suukar. alhamdulilah soxna si maa ngi lay euh, ziare. soxna si booy gis règle day métti. règle am na wala amul. Ah, day jàpp ci côté ndeyjoor bi rab bi nga dugg mu ngi lay dugg ba ngay am presque seize ans. seize ans la la rab bi dugg mooy waral day def métti biir ci côté ndeyjoor bi nii mm-hmm. booy gis règle na nga koy gën a gis booy métti biir bi euh, boo xoolee sa euh, bopp bi parfois tamit day jékki mu métti tuuti nga ba tàng nga tëdd mu nga toog diir tuuti rek nga gis mu arrêté waat da nga nekk ci kër gu tudd poisson kër googu poisson mooy euh, këru ndox rab yi foofu la gën di bëgg di di di di kii parce que seen tabiya ñoom suuf poisson yi seen tabee souf souf la mo waral bo xoolee day jaxassok souf si ba nga xam jaw ji ak souf ci mo waral ñom pour ñu pénétrer ci xalé yi jigéen yi ndaw yi day bëri waye bo soxna si amna gor go xam da nga bëgg lool te yaangi nek ak moom mom, yo te yang gog ngay gis nonu sa ak mom mhm. yow lu ne yaang ko ci jëm waye xam nga lan moy fajj yo ad pour li nga bëgg nga am ko waaw waaw soxna da ngay ba dugg sa biir kër wala ba ngeen dajé yow at mom ci décembre bi ni ni ha ba paré nga ne salala ala muhammad juróom-ñaari yoon def ko nga xool sa aaju <laughs> day soxna si dégg si boo xoolee sa wàllu bopp yow dangaa doon nit koo xam ne yaakaar jigu la relation yi day teglantoo mais day dem ba nga am ne relation bi ba nga xam ne lii baax na nga jég-jég boobu dañ beneen ñëwaat ba kii di ñëw kii nag mooy sa jëkkër waaye li ma lay conseillé mooy bu fekkee mën naa nekk mm-hmm. da ut dagu euh, euh, guro bu weex ak dugub suuna ak mboq nga mhm. saraxe bu bësu ar alxames mhm. gis nga boo ko saraxee waaw balaa ñuy waxaat maanaam atu deux mille vingt quatre bii di ñëw mhm. sa aaju yëpp dina faju waaye buy faju xam na nan lay tombee ma kilifa gu mag goo xam ne mooy àddu ci mbir yi dugal la ci waaye boo ci duggee bu ci dellu ginnaaw de boo ci demee di ci gis lu lu rëcc loo xam ne doo ko rëcc mukk ndax góor gi si boobu dalaa bëgg bëggeel goo xam ne jigg na dem na sax ba ci di uut ay ñaan ngir yow so si ndax bëggeel gi ñu yow soxna waaye bu fekkee mën na ne nag yow soxla bopp li gën a am solo ci jamono ji xam mooy lanam saraxeel sarax bi te toog xaar gis nga boo ko defee. métti bopp bu bàyyee rab bi bàyyi. ci saa si da nga gis ne li nga bëgg ci at mi da koy am te doo am benn problème jërëjëf keneen la ñu wax. soxna si dégg nga liñ la wax. dégg naa baax li nga wax.